mooy la dissolution du parti Pastef loolu ñun ñi nga xam ne xëy na ñoo mujjee euh, gane àdduna fàttaliku wuñ fu mu amee ci Sénégal xëy na amoon na nag ci lu yàgg euh, tey jii bi nga ko déggee naka nga ko dundee. bon sànq euh, am na ku ma déglu ku am xam-xam ku damay fàttali ku bokk LD. Mhm. mu def historique gu politique Sénégal nee na c'est pas la première fois ñu dissout parti. parce que parti peut am na ay charte mm-hmm. mais parti booy seet mooy parti mooy association kii signé récépissé bi c'est le ministère de l'intérieur la muy sukkandikoo ak la muy xam mën am man tolluma ci niveau d'information boobu parce que gisuma kayit dama ko déggu doon yëpp mm-hmm. ba tax mu jël décision boobu mais yaakaar naa ni euh, ku nekk ci état doo jël une décision avec légèreté bon am na loo xam ne tënk nañ ko xool nañ ko càmbat nañ ko ba tax ñu jël décision et peut-être jour yi di ñëw dinañu leeral sénégalais ci décision gi ñu jël ci fi ko wéer. mais est-ce qu'on a est-ce ak niveau bi ñu toll ci Sénégal ci wàllum démocratie ay jamono euh, président Abdou Diouf woon jàkk jàngoog ku mu neex nga noddu ñëpp applaudir tey jii ñu dem ba ay at yu toll noonu weesu euh, parti Pastef aussi nekkul n'importe quel parti te ñoom bu ñu déglu souvent nee nañ ñooy seul parti bi nga xam ne dañuy respecté euh, charte yi nga xam ne ministère de l'Intérieur tënk na leen ko. ci financement ci wàllum compte rendu ñuy def annuellement donc tey jii lii bu amee est-ce que ñenn ñi ñu ñaaw njort ñu bokk duñ jàpp ne am na lu ci laxasaayu xam nga danga nga wax léegi démocratie man dem naa ba gis ci loo xam ne nekkatul démocratie parce que est-ce que démocratie mooy saagante mooy wax lu ñaaw jëf-jëf koo xam ni boo ko déggee am kersa bàyyiwutuñu kenn bàyyi bàyyiwuñu kër diine yi bàyyiwuñu sëñ ñi bàyyiwuñu nit ñu baax ñi dem nañ ba ci biir ma ne finalement est-ce que loolu politique la parce que bu ñuy wax développement euh, de mooy ñu mën a poser ñun ay actes yoo xam ne day jëm ci développement mais bu ñu toogee tey jii am ay doxalin yoo xam ni xale yu ndaw yi duñ ci gis seen bopp parce que li tax ma wax loolu mooy valeur laa andi. Mhm. parce que ci ñun ba ñuy jàng daan nañu jàng moral daan nañu jàng éducation civique mais bu ñu demee ba valeur yooyu amatul ñu gis yeneen doxalin yoo xam ne méngawul ak politique sa pose problème et je profite de cette occasion pour euh, ñaanal yàlla gudd fan ak wér le président Abdoulaye Wade ñun 88 fi nañu fekk. Mhm. doxalee na doxalin koo xam ni peut-être bu ko doxul woon tey dinañ wax leneen ci réew mi léegi nag li ci nekk man aw ma dara compte Pastef ni ko Ousmane Sonko parce que euh, dinaa leen suivre. ci net bi nii mais damay wax ni euh, nit booy àndal àndal aussi ñoo xam ni dina la mën a conseiller mën a wax loo xam ni nit ñi bu ko déggee dina nekk jàmm dina nekk loo xam ni euh, day yenu maanaa mm-hmm. mais malheureusement man li ma suivre démb procureur teg ko parce que euh, net bi dama ko dul faral di xool ndax yi ñaaw ñu ci wax mm-hmm. mais la ma suivre gis ñu wax ko doy na waar léegi nag na mbir ma demee ak fu ko tënk peut-être jur yi ñëw incha allah dina am lu yoo xam dina ah, a xëy na xëy na njumteel am na ci xëy na laa wax parce que comme ni ngay mandoo euh, noonu laa ko bëgg a defee aussi euh, mais ak niñ la xamee euh, Pape Mayel ci modéré ci tey ci dal ndax décision bu mel nii doon nga ko digal le président Macky Sall. xam nga président dama naan jàmbaar la bu doon déglu entourage am laay wax peut-être dina am décision yoo xam dina ko jël te dinaa lu tax mu jël ko mën na muñ. am na dal te tey na. Mhm. parce que dinañ ko wax ci lu bare loo xam ni defu ko. et man je bien placé pour le dire parce que man ñëw mu entre les deux ndax koo xam ne depuis 2011 yaa ngi koy suivre. Mhm. di xool doxalinam ak yenn yi euh, di nga ko mën a juger. dañ koy tudd ci loo xam ne du ci dara parce que li ko indi mooy njiit mi mais nañu sant yàlla bi nga xamee ni am nañu njiit moo xam ne euh, nekkul koo xam ne c'est un apôtre de parce que président Macky Sall jàmm la mos a woote maa ngi koy fàttaliku ca 2012 ba mu naan nanu dem defi campagne bàyyi histoire yi bàyyi yenn yi mm-hmm. donc euh, li xew parce que kenn du yéene kenn ku ñu jàpp mm-hmm. mais nit ñi war nañu jël ay matuwaay ba nga xam ni du ñu doxalee loo xam ne boo koy topp day mel ne erreur mm-hmm.